yow temps yi moom na mën naa moom sa kër gi wét naa. ah naa moom temps moom xam nga rek. Marichou mi ngi kër yaayam bon man sax fi nekk ak Nabou mais dafa génn. ok. temps yi moom wét naa trop quoi. yaa ngi nii daal ci loxo yàlla rek. waaw gis nga de. kon marisu mom dem na ni nah, dem na dem na mi ngi kër mi ngi kër yaayam. Hmm. xam nga rek situation yu mel ni mom surtout ak daanu bi yoy bon sama yaay sax neena ma c'est normal quoi pour que mu dellu si kër am ya dampat ko yoy yëpp. kan dampat marisu Marichou. ya am la dem pour ñu damp ko. waaw wala affaire yi dafa metti mu daw. non non c'est choc moo metti. mais yow man man yow mais yow fot yow lan la ah. sérieusement parlé rek lan la yow yow yow nga amee jabar sa jabar nekk fii affaire yi metti mu daw bàyyi la fi nga ne fi di lekk ay gerte xot nga ne fi naan ay sama jabar dafa dem daam dafa yow yow la. non tos bi ah. amuse rek. yow may ma ak amuse bouche waaye da nga sonn nga ay amuse bouche ban bouche ngay amusé ah, yow nga sonn amuloo lekk nga jënd xott naan ay amuse bouche. Hmm. lii la la doon bañal parce que bi nga koy takk lu nekk wax nañ la ko ngay jaay dëgër bopp ah li nga ko sa kër gi ni melni ah fi tol ni am nga problème mi ngi dem na yonam parce que du soy kat jigen bu baax sa jëkkër bu nekk ci ay problème ngay tok wala bu kër gi amé problème metti lool nga tok loolooy sey mais sey bo xamni dafa wara neex rek bu ci neexee après nga ali ñox dem sa yoon loolu loolu kay du jabat loolu kay nga nga bañu ko tak sax moo gën ah. kon su ma la déggé nga ne sama jabar dal du jabar. non du du jabar parce que li def ni mom jabar bu baax du ko def. toos nak tos nak toos. man dama la jox ciir mais yow dafa melni ni gisoo loolu to est ce que nga man joxuma la sax turu nijaay turu papa la la jox papa la lay wowe à chaque fois sumay wax ci yow ba pare da nga bokk sama yende ak bay ma am fenn fuma la tek hmm. to so wax rafetul tey ah man ma la doon xaaree feneen toos yow Marichou yaa ko teg waaw waaw donc yow tey nga ñëw fii di may naan ay sa jabar li dama la digal ma sonn nga bañ ma bàyyi la mais dafa daw kilifa nga toos loolu moo ko wax mais dafa daw dafa daw dafa daw may la sama jabar mi nga am accident ay ban accident tos man pour man sooy ñëw di nga may waral man pour man ba nga fi ñëw tay da nga may pour encourager ma pour defal ma mais pas pour de ma xass ni quoi. xam nga la mo fi ndol gëj la gis yërëm la ñew de la seet mais yow neexoo yërëm yow kenn du la yërëm parce que yow da nga dëgër bop yow sa dëgër bop gi mom nga fas yéene dal yow ah yow nangoo ne Marichou du jabar ju bax dal nangoo woko nangoo woko ah dëgëral bop ba dee rek dëgëral bop ba dee rek lu waxal lu la neex man instant man fu mu toll sama xel du ma ko ah parce que waaw parce que man xam naa ki ma takk bëgg naa ko bëgg na ma ñu ngi dund lu neex situation moo demee nii moo tax nekku fi instant yi toll nii. mais hmm. su fi nekkoon daf may toppatoo ba mu. su fi nekkoon su fi hmm. nekkoon a ngi noonu di dem su fi nekkoon a ngi ne te mu nekk xamoo lu mu fay def. Hmm, sant sama namm la. sama namm la daa ko namm yow tamit. <laughs> ko mëna mën woo yow mën nga war ni su ma la gisee rek maa la chaque jour nga may du loolu yow tam xam nga ni say bu ne waaye xoolal bu la dara metti bés ni ki tey loolu jeex na sama day la chaque jour ngay def ah ouais chérie vraiment je compatis la dal métti na torop mais da nga war xam tamit ndogal yàlla jaam mu def

yow. doo mës a changer. d'ailleurs sax dama am surprise pour toi. surprise. waaw surprise lan noonu. ah dégg naa moom fu nekk ngay génn. man rek gëstu. merci. Daro. ça va. ah Oumy dafa ñëw fii di Nathalie. ah kon Oumy léegi day jouer en live léegi. en tout cas day wax na ma lepp té lolou ma franchement bét na ma moom moo sax amul problème mais man si yow ton état pas daf ma bét trop dama ne woon damay ñëw foofu spécialement ñu waxtaan hmm mais bëgguma ci débat ak yow parce que man dafa am lu ma la rusee tons mais xamna naa boy man ñëwé ma baña a man sa kilifa la man lima ma la laa nekk ba léegi boo ma rusul amul jabar nga ma dama lay door ba nga fébar yaa ngi dégg li ma la man bu fekkee umu mo lay natalé mo ummi na lijeenté ay affaire am comme umu lég mo moy la jouer en live dootu la jouer en différé lolou dina ko lijeenté kon nak yow Marichou da ngay xaar togal xaar Marichou fi ba dee fekk la fi ya xam. nu ko xaar yaangi deg dégg dama koy jëli. ko ko koo jëli koo yónni kon ngay yoni mën nañ fa and kan kan kan ngay kan ngay kan nga ànd fan. eh xoola boy yaangi bëgg pol de. waxaan nga ko sun barki yonent bi dama jóg ñam la de. mais rek ci néegu sëy rek. ci mere la la de. si waaye non parce que sama anniversaire du suma Right. Umun ako bugin sa may mo bayo mo ta ko may pasok. Mom dafa dafa dafa wulu ko ko na. Sa may frek. Ito wulu Eh, xam ngeen lan la mau damay jóg ñibbi de ñu fi ñëwee ba tey yéen a ngi waxtaan ngeen ma seen waxtaan. Gasal yow tam lan la nii dafa ko lamb rek. Dafa lamb la yow ñoo far. Nee nga bu la Eh oui mau lay fii nag graaw. Jarul kan, fii la dañuy toog def mu baax eh oui ma ani ma lu ma naan. sàmm wala boog oui ma souriral ma xam ah wala boog ah voilà. franchement nag je tellement contente nag boo xamante ne chaque jour que j'ai fait moom ngay déglu son nga ñëw mu may la ko àllaay bi ngeen gisante. dama kontaan. oui dama la nag mais mais mais sa xol son boobu nga ne sax. man. Happy birthday. Gue udah Cu, karena ada karena karena ada juga mas jujur aniversaire. Semua jujur aniversaire. Mama ini tega lo. Imagine, imagine. Jujur, menek metrap sah. Yo, tá obrigado. Yo, de trem banana. Aí eu sou um bebês bi. C'est vrai que Guinée sont obèses. Oui, nous sommes obèses pour peut-être pour un balance. Vous avez le studio, oui? Et tu m'as dit non, non? Non, mais. Je vais le faire. Je vais le faire. Stok matsan na na daw mo jayo pero sama ko sa mait mo. So, hindi ko nulo kay mahinyo. May mako, may luchitut. Wakal make. Ah. Wako ni mafi nek. Ah. Wakal make. Ah. Hamal ko nega ni mafi nek. Ah. Y'a kamu moi. Ah. Qui peut faire ça? Y'a pas moi. Y'a personne qui peut faire ça. Bakal ibita kami. Ibita. Oh, ouais. Wala gini tayo pa. Kau mana? Esok. Eh, Terima kasih.

moo mujjee ak pot de ko sama xol bi yépp a jeex bul ma wax ne pot li nga ko expliqué yépp comprendre ko de bu doon loolu sax dinaa ko comprendre mais ma tiim pot desul lu dul wax ko ko bu may expliqué ay problème mu sëyam instant yi dafa déprimé te situation yi ma ko fekk noonu mënuma ko ci woon yokkal leneen ndax dama ko doon bañ a doolil xalaat yow nit nga doomam nga may wax ne moom nga koy doolil xalaat tax ko yow comprendre de ma dama bëgg bés bu ma koy expliquer pot na ma leer ni mi ngi may bàyyi xel bu baax ndax wax jooju du lu ñuy parax paraxee dee loolu tax nga def ko de def nga lu rafet ndax xalaatoo ci sa bopp yow rekk bi ngay dem décision yi nga jëloon pour wax ak Pod lépp xalaatuma woon ne dara dina la ci génnee xamoo li may yëg sax li Pod doon metti ni mu ñàkkee doomam dama ko yërëmoon moo tax instant yooyu waxoon ko dëgg bi rek laa bëggoon waaye nag bul si mel ni bu yoon jeexul wax su du jeex te di nga am occasion boo ko waxee lépp. wax nga dama jël sama décision Mia dootul dellooti fii la nar ak décision boobu de décision bu ma la décision boo mës a jël bii gën. nga waaw. waaw baax na en tout cas remercier parce que li yëpp bu amee yow tax. dañu neex a digal nag ndax fu ma la jaarloo danga fay jaar loolu moo tax yow nag dangaa bëgg lu yomb léegi nekkatoo xale de Mia moo fi war di tëdd fii de sama place la Mia moom mun a dem ut ji sama yaay ya. asalaamaaleykum maaleykum salaam ah yaay. mais ren de. maanaam de. ah dara yaay xaw a xam mu reposé wu tuuti ren. oui nag. nga mën naa leen. Ah, ah, na ci nga tëdd nii rek di. yow ah, ma <laughs> yow. waaye maa leen di bàyyi ngeen waxtaan maa ngi ñëw. eh, eh. ma yàgg fii man. foo jëm yow. yaa ngi lay xool rek maa ngi ñëw ñu tam affaire. yow ban copine nga am fii si koñ si yow fii maa la fi gën a miin moom. kaw baax maman à tout à l'heure de. waaw lu nga bàyyi Moustapha fee ci salle bi moom kenn. yaay yaay man tontu Moustapha man je ne sais son problème man tontu Moustapha mënutuma wax ak moom sax. ah lan mooy loolu loolu du jàmm. yaay tontu dafa sànq la fi ñëw. ñu ñu waxtaan man man jàmm ko fi indi sax mais yaay il suffit juste ma tudd mel ni dama ko piqûre. mais lu nekk mu koy wax lépp lu bon ñu koy teg ci kaw dëru Marichou naan ma sama jabar dafa bon naan ma sama jabar dafa daw mais ak Marichou li ko dal fii nii ñu amul sax tuuti yërmande mu ñëw naan ma ay dafa dem ñu dàmb gaa ay genre dafa daw moo tax mais j'étais énervé lu moo tax ma ñëw fii tëdd fii en tout cas man de toute façon dina ma dégg bu la dara naqari ndax man setlu bobu nga am am ko bu yag dama waxul dara rek ndax keroog bi su ñëwee pour togg rem bi mustafa ak Momo kenn gisu leen ci kër ga ñu fi metti ma lool Umu Kalsum ne ma da len koy wax mu ñu nekk fa di saboté di reetaan c'est ce que je lui ai dit non laa ko ko ni Umu m'a tout raconté surtout en ce qui concerne même ba Marichou daanu loolu laa ko mais ay réaction yo xamanteni mais ma xamul tonton Tapha comment il peut se comporter comme ça. ñàkk ah, xel la. minimum sax yaay mu am respect pour sama jabar. vraiment. ça pour man yaay loolu c'est le minimum mais yaay tonton Tapha ah yaay rien à faire te lu ko neex lay def moom lu ko neex lay def kenn du waxtaan il fait ce qu'il veut. waaye dina ma dégg bu la dara naqari tey rek la mën a dégg tey tey tey tey la mën a dégg. parce que man comportement moom ak moomu neexuma dara vis-à-vis de Marichou. li ñuy comporté woo neexuma dara te dinañ ma dégg tey man. ba pare yaay man lu ma mënul comprendre mooy lan la ko Marichou def te man comprendre te man naa ko defu ko dara dafa far ak far Eva ba ci la mais moom ce que dafay far ak Eva man ma ba loolu man ma delluwaat ak Eva wala dara plus man nag lii. début man pour man ay mais mais je ne sais pas Comment il s'acharne comme ça te man comprendre moi pourquoi Moi suis équilibre en plus hmm. n'a papa de billahi hein. jaru ko nak ndax man taxaw taxaw papa waaw bon nak bo wax da ngay bëgg sama xol non du fofu yaay man fu may ko taxaw cest yaay taxaw sama taxawaayu papa. isa tolu tafa loolu waroon loolu waroon jël. looloo tax na nga war a am sa fulla sa fayda. téye sa jabar sa kër gérer li la war a ya, def li la war ci moom yépp nga def ko rek ñoom ñooy mu jurus rek man li ma war a def man dinaa ko def dafa dina ma dégg bu baax a baax parce que loolu muy def noonu waru ko fii mu nekk moo leen waroon bàyyal fii mu nekk dara waru leen woon a naqari moo leen waroon di conseiller

jéem na la oo mais boîte vocale la jot. Momo ba ma génnee Ma maa filtré numéro te C'est nekk fi di innocente di ne a pas ndax yow yaa ma déplacé Thiès ba tu n'as pas respecté ta part du contrat donc vous tous je vous mets dans le même sac ay bah, la ngeen yéen ok tu as parfaitement raison d'ailleurs sax man loolu kese que fi Yacine la soxla te que c'est du baax. que du baax. rek xaar que c'est mënu spectacle bi kanam bi nga yox ak bi que bi c'est différent man ku xam-xam ni dama reuy so gisee ma ñëw fi di rabaisser wu à ce point c'est parce que c'est la dernière chose à faire Yacine foog nga jàpp si ñu xam ci ñan lañ dugg. foog ma jàpp si ñu xam si ñan lañ dugg. depuis le début avertiroon naa leen newoon naa li nga def nii risque la mais boobu da ngeen dëgëroon boobu parce que xaalis bi ngeen doon gis man mi dugon ci ñom ba génn ci xamna len bu baax. len de dinaa leen ko xamal jox len seen xaalis sax worul mu génnee leen ci une chose est claire vous avez signé votre arrêt de mort moom man maa ngi dem ci des choses à faire. waaw dimbali ma rek may ma tuuti may ma tuuti rek allo. yow noo may woowee foo xam te ne kenn nekku fi. waaw maa ngi ñëw xanaa joo nekku fa. no man rek maa fi ne gisuma fi kenn. waaw maa ngi ñëw. waaw Umu Kalsum daal mun naa wax ne moom dox rek. yaay yaa man moomu su leen jaaxul yaa man moomu jaaxal na ma yaay moomu xam nga ñëw na sama mbirum. yaay ñëw fa naa ma dafa am problème mu xaalis naa ko naa ko may ma ne ko lu mu ko dafa leer yaa man nee naa ko man instant yi fu mu toll nii su bëggee liggéey si mun na ñëw bureau ba yaay kanam gaa ngi toll nii kenn xamul xama xam kenn xamul lu muy nduróol man nag sama wax du ci bëri parce que yaay moom dafa nekk kër gi di def lu ko nekk tootoo tafaa di ko fa protéger donc loolu nag moom yaa man mënu ma si dara xanaa nga wax ak moom eh! Qui tu te calmes tu n'as rien à dire yow là. lan la. là soxlawuñ ko fi Tu place am très très bon bi là. tu es là. Tu nit ñi. Tu es là. Tu es là. nit là. rek es là. def ngeen Tu ko hein? dernier délai ngeen es ci Tu ngeen là. a es nit mais es ngeen def es là. irresponsable a yéen daal fu ñu dem rek il faut ngeen songoo fa nekk leen mag. bu amee fulla de dina liggéey di yor xaalis comme ay moromam d'ailleurs sax looloo tax ma dajale leen fii parce que man Moustapha yow sa comportement yaak moomu vis-à-vis de Marichou neexuma doomi jàmbur la seen dooma ko tànn takk ko dugal ko ci këram di sëy moom dangeen koo war a jox sa respect bu mag sëkk yow xale yi yaay seen baay amuñu baay yaa leen fi toogal baay bon nag am na yenn yoo xam ne waru la dégg waaye nekk fii toppal moom seen wax yu ñàkk fulla yu ñàkk xorom yi ngeen di nekk ci dëkk bi le loolu danga ko war a bàyyi toog leen toogaa bàyyi loolu lay xaat ci yow xale yu may kilif nekk seen kilifa mooy ñu ma déggal moom moom waxuma ko waxuma ay affaire moom moom mais kii déggalu kuma ku nak déggalu nag man lijjantumaay mbiram ba muy takk ci dama ne ko bu ko tak da ko tak wa yow ya koy nabal ya koy tan motax nak legi kim ki bëgg comme bëgguma ko man amna droit de réserver wala de. yow loo am loy bëgg ak loolu bëgg. ro baye sa jarbat bëgg nga jàppale. wa looloo tax ma baxoo Marichou man bëgguma marisu lan ngeen bëgg da ngeen ma ko bëgg forcer. mais gis ngeen mën na ko. Marichou ma maa ko bëggul bëgguma ko dafa ñew wax ma ma ne ko bëgguma kii Marichou masuma ko gis fu mu jullee xawma ma la xawma lu mu doon ah ko pour yow amoo looy bëgg ah, man daal xam xam naa ne daal yow xam nga lan laa bëgg nga def yow mosuma laa xame ñàkk fayda jógal nga sol say daal dem jël sa jabar jee boo jëlee sa jabar jee nga andi ko fii ngeen sëy seen sëy xale bi fekk naa ko fi du benn yoon du ñaari yoon ku am fulla la ku am fayda la ku am teraanga lu nekk defal na ma ko fii jëlal sa jabar ngeen sëy ñii li ñuy wax bu ci sa yoon nekk dégg li ma la wax. yaay li nga wax yëpp dëgg la mais problème bi mooy que ne li nga yaakaar ne loolu mooy problème bi du problème bi n'est-ce pas da nga woote pour ñu waxtaan kon nañu waxante dëgg Pod moo la mënul wax lépp Pod sama xarit la sama complice la problème bi xam nga lan la Pod dafa nopp Eva ba tey. Oh. Eh, eh, eh, information daanoo dina. gis nga man je que man loolu si tontu parce que Erasme sama jabar wax si ay sentiments je pense que loolu c'est pas à l'ordre du jour. li am mooy ci li nga wax bu ma jëli sama jabar yaa man instant yi loolu kese laa bëgg yaa Marichou elle mais yaay Marichou ba muy jóge fii di dem yaay moo ma ñëw ñaan si ne dafa bëgg yóbbu doomam. donc yaa mënuma tëb tëb rek comme ça ni dama koy dem jëli solo say dal nga dem jëli sa jabar nga andi ya, ko fii gis nga yaay ji boo demee jëli ko du la ne bu ko jël de loolu rek la yàkkamti fi mu nekk xëy na fa mu nekk sax dafa tiit ndax li nga ñëwul demal jëli sa jabar nga am sa fulla sa fayda nga téye sa jabar fii te nag tu prends tes responsabilités Eva li nga ko def budon man dootuma la gisati bo ñewé sama kër dina la dakk ni xej na nga baye jàmbur prends tes responsabilités magum jëm nga xam nga li nga wara def. maintenant que vous vous êtes calmé on peut passer aux choses sérieuses Momo soo gisee ma wol fi c'est parce que xamna ni nekul ni mom moo ñu lolou yow la si la ki di traîtresse. Momo man su ma leen bëggoon fexeel.

tay gi sama su fi sama tank. ki motax na mom la yërëm na xamul ne sax ay ñak fay la lay traîner ay irresponsable surtout yow da nga ñemee balbalu té do dara tu peux même pas faire face à tes problèmes Ben affaire nag dinaa ko xamal te xamoo ne naa la ko ci début que leen dugal si problème bi du leen ci génné ñi ngeen amal affaire ni.

te chance ma génnee si ñoom gëwuma dina ci génne keneen te am na beneen bu ma leen waxagul képp ku ma sax am wax ñoom problème tey jii sa waajur ñu lay jooy euh, yow mantulaa ci bundoo yi jële nga kër gi li nga jële ya kër ñëw revir dok presse fii ba mu jeex li nga fi nettal yëpp jot naa ci xam nga luma la bëggee gal sa nettali yooyu noonu na nga ko téye dégg nga baax a baax li ma la wax yow lu ñu joxe ndekete yow lu ñu wax kër gi yaa ñëw fi di ko nettali pot parce que ay fëgg jaay yi mu lay jëndal morso 1000 francs yi ak sa ay sagari garafaas yi mu lay may moo tax loo dégg nga ñëw nettali ko eh, xoola bu ma waxaan nga may tonton ah, je te préviens nag bis boo ñëwaatee fii nga nettali ma dinaa la dóor ba nga feebar dégg nga li ma la wax taxara wuti jëkkër moo gën gis nga kii lu mu dégg kër gi da ko ñëw fi di nettali ah loolu loolu loolu moo yëfu xale hmm? est ce que moom li muy def ñu ngi Facebook bu mu nekk ak WhatsApp la xaw ma di jaay boppam ñu koy wax. jaay boppam kii ay foto yu bon bon la yónnee ah kii. photo yu bon. WhatsApp la xam nga WhatsApp yaa ngi ci photo ay photo yu ñaaw di ko yónnee ñu ngi koy. ñu ngi yu ñaaw yu mel na. xam na ko. xam na ko kon kii kii. may ma waa yow du lépp la ñuy wax. boo ko gisee nga won ma ko. sama man man ma gis photo kii moo la kon da nga neex. baal ko muy jaay boppam ci fa. yow da ngay da di dugal ci internet. bu la neexee après dugal effacé amul dugal effacé amul. kii réception moo yor photo mais li muy envoyé da koy effacé. Eh, yow na nga réglé de. ok a vendeur nga naan ay. Kau yang faham. Makan darah pun jangan. 한국 사람 빨리 빨리 Thank you. d'abord, j'espère que vous avez déjà téléchargé l'application Maroli TV sur votre smartphone. Voilà, si vous l'avez déjà, je vais vous expliquer quelle est l'utilité de votre onglet favori. Pour les amateurs, par exemple, de la série pour les vous avez envie d'avoir la série dans vos favoris. C'est simple. Vous allez sur Menu. Voilà, vous cliquez sur Série. Et ensuite, vous cliquez sur Options et vous ajoutez à vos favoris. Et là, c'est simple. Vous avez la série pour des maréchaux dans vos favoris. Et l'avantage, c'est que vous allez recevoir une notification à chaque fois qu'un nouvel épisode est en ligne. De ce fait, vous pouvez tranquillement regarder votre série et les conneries de mon et tout